général di Mbagnick jóob ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko nuyu waaye di nuyu également suñu DG bu baax bi Diop Juba Moustapha ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la nuyu madame Sané moom itamit suñu yaay la nee naa saa su ne duñu tay di ko wax borom baax a ngi noonu mooy yaayu kër gi nuyu nañ la ziar nañ la ki nga xamante ne mooy sama mag maa ngi koy nuyu euh, Penda siyaar naa la bu baax a baax les hommes de l'ombre nee naa toujours bu baaxee yéen la bu rafetee yéen la Malick Oulimatou yéen itamit ñu ngi leen di ziar bu baax a baax sans plus tarder dañuy ñëwaat tey ji nga xamante ne mooy ba àllarba dellusiwaat ci suñu thème fii ci plateau bi li Linguère ànd ak yéen di leen ko présenté émission bu mag bi yittee askan wi waaye fii ci télévision bu mag bi le di réew Rewmi TV su ko defee rek toujours comme d'habitude ki ma tàmm di àndal sama copine sama xarit Mame jaara ziar naa la. maa ngi lay delloo ziar Linguère di la nuyu di la jox sa wàccuwaay. Uh-huh. di nuyu waa kër gi waa Rewmi TV nee naa leen c'est la télévision inclusive ndax mooy télé bi boddiwul kenn. Uh-huh. télé bi beddiwul kenn loo fi jeex fekk ko fi. Uh-huh. maa ngi leen di nuyu comme ni nga ko waxee di nuyu aussi leen les hommes de l'ombre euh, seetaan Rewmi TV la télévision du peuple. di leen mhm. wax ne mun ngeen ñu seetaan ci. Mhm. canal ci TNT canal 108. wala ngeen mhm. seetaan ñu rek ci YouTube tapé réew mi réew mi officiel rek daal di jàkkaarloog ñun ñu ñëwateeg yéen rek. comme ni ñu koy defee ci yitte askan bi. Uh-huh. ku nekk gis sa bopp rek ci yitte askan bi mu ngi noonu. duma dem te dew ma seeti malaat yi di leen ñaanal. suñu borom yàlla fëgg seen bopp ak képp ko xamante nag sa yaram dafa sutante ñu ngi leen di ñaanal yàlla bépp malaat yàlla wéral leen incha allahu rabbi waaye nag dem wax di ñaanal ñi nga xamante ne ñooy suñu frères yi ñi caabi féete ginnaaw yàlla woyofal bu baax a baax génneewaat leen ba ñu mën a delluwaat ci seen i njaboot mën a àggali seen i liggéey ci kattanu suñu borom bi su ko defee maam jaara tey ji àllarba comme ni ma ko tàmm di defee rek ci suñu thème bi nga xamante ne mooy thème bu yaatu bi ñu koy waxtaanee démb ba léegi waaye balaa ñuy dugg ci thème bi dañuy waxtaan ci li nga xam ne tey mooy actualité xam nga mooy lan li ñu xëyee wax petrole ak gaz tey moom la ñu xëyee wax ndax dëkk bi naat na maam jaara ba tax ñuy wax petrole ak gaz te fu ñu toll nit ñaa ngi daw di kurti kurti yaakaar naa ni Sénégal réew naka lañ koy waxee réew réewum teraanga la donc dafa waroon neex yaatu féex ñëpp gis ci seen bopp maam jaara Sénégal de. Ah. yaramu màgget la <laughs> foo laal mu metti noonu la fi di xewee. Eh. te booy xool réew mu am pétrole. Hmm. am or. Hmm. Linguère yow imaginer réew mi am or. Hmm. ñun doomi réew mi or mënuñu ko laal fenn. ah man de moom a jaaxal. imaginer réew mi am pétrole. réew mu réew bu demee ba am pétrole. kenn waratul eh, yëg ndoolu réew moomu. Ah. kon bu ñu nee réew mi amul xaalis. te am petrole am zircon am or loolu dafay xaw a doy waar. dañuy wax kay. dafa dafa dafa dafa jéng ba weng dafa demee boor dafa jéng bul dox dafa demee boor gis nga ah, wax danga ah. koy teg ca waxukaay ba di koy dëj neel dafa jéng ba weng demeewul benn boor <laughs> réew mi am na pétrole ah. am na mm. am na zircon mm. dafa jéng ba weng doy na waar te ñun sonn ku nekk ngi xëy di kërti kërti kërti foo dem ñu ne la Sénégal boo demee voyage ñu ne Sénégal pays la teranga dëkk bi gën a neex ci dëkk yi mooy Sénégal te yàlla xam ne ña fa dëkk lekkuñu seen i nelaw doyut koo ci gis daa daw a daw a daw ba animé du noonu lañ koy waxee daw ba jeexal mu metti bay bëgg a dee dara amul. pays de la teranga la de. Sénégal. Hmm. pays de la la. Hmm. ndax Sénégal dëkk Bamba ak Maam Baay bii. wallaay jàmm jaa ngi fi Maodo Malick bii. Hmm. Linguère li am fii amul fenn. déedéet xam nga dama wax ak kenn mu ne ma. Sénégal rek ngay dem. ñoo ne la kaay añ. effectivement gis nga man bi ma demee Mali. dama da ngay xiif sa romb nit. Hmm. pour pour mu ne la kaay añ c'est tout problème mais Sénégal tey nga yor benn mburu sax xaaj ko si digg bi. Hmm. séddoo ko ak nit. mais sunu valeur yooyu. Hmm. mu ngi bëgg a yàqu ndax léegi da ngay gis ku ku togg ku war a togg kilo ceeb. togg liibaru ceeb tëj buntu këram buy añ te Sénégal loolu amul woon. <laughs> ñooñu ñi sant ñi sant ñan la. <laughs> ñi sant ba ñi sant ba la bàyyi <laughs> wax sama kari sant ba ñoom Pape Samba la. bu ko defee mi ngi noonu mu metti bu bëgg a mu nekk li nga xamante ne moom la ñu ubbee muy pétrole ak gaz ñu di ko waxtaane mu metti lool pays de la teraanga mm-hmm. dëkk bu am lislaam mm-hmm. waaye nag xaalis bi demee woo demee boor mm-hmm. ah Mame mu metti lool su ko defee rek dañuy daal di duggaat ci suñu thème bi nga xamante ne nee naa yittee askan wi li yittee askan wi rek moom la ñuy waxtaane li nga xamante ne mbëbët nañ ko jàmbaat indiwaat ko ñu ci duut baaraam di ko waxtaane mooy li nga xamante ne mooy yittey askan bi mm-hmm. su ko defee maam jaara mm-hmm. thème bi ñu yëkkati keroog mooy xaalis alali àdduna moom la ñu tàmbaliwaat tey suñu deuxième partie tey di ko waxtaanee dugg ci biir njaboot gi. Mm-hmm. gannaaw bi ñu waxee barki démb li xaalis di def. ci ay diggante xaalis maam jaara dem na ba boo demee tribunal ay dossier nga fay fekk. ñi nga xamante ne dañuy tas yaakaar ñi nga xamante ne ay trompeur lañu ay sàmba surambaale lañu ñi nga xamante ne dañuy bëgg toujours nan la ko baat boobu di olof di waxee lekk alalu jàmbur ñaq jàmbur. Mm-hmm. ah loolu tey dama bëgg dugg ci laata imam di ñëw xam naa mi ngi ci yoon bi mm-hmm. nga laal ci tuuti bala muy ñëw. xam nga euh, Linguère. Mm. <laughs> gis nga yàlla sunu borom. Mm. moo a gën a xam sunu bopp. moo tax lépp da koo teg ci yoon. dëgg la ñun nag ñu ñoo xamul suñu bopp. moo hmm. tax ñuy wàcc yoon bi. mais gis nga képp kuy dundee ñàkk doomu aadama. Hmm. nga yaakaar na yow yaa nga ca. Hmm. gis nga balaa ngaa dee. la la ko suñu borom di woon fii nga koy gis ndànk-ndànk. di feebar yenn feebar yoo xam ne lépp loo lekkoon. di nga ko génnewaat fajoo ko. gis nga ñàkk doomu aadama. nit sax yeneen tamit nga xam ne moo ñu gën ba gën ñu ci ndey ak baay. waaw nee na nit boo ko liggéey loowee. balaa ñàkkam di fendi fay ko xaalisam mais est-ce que ñëpp xam nañu loolu. nit ñi xam nañ ko. Hmm. soit dañ koy bañ a def. wala hmm. nga suñu réew mii di Sénégal. Hmm. Euh, ak ñoo bëgg liggéey. mais mun nga liggéeyal nit te du la fay. voilà foofu nag laa. da ngay xool da gis ku bind ku bind ku bind jànk. jànk bi di ko liggéeyal. di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba weer bi dee. moom patron bi mu provoqué ko. mu provoqué ko histoire. ne ko duma la fay. te day am xaalis. léegi nag boo bëggee ñu dem yoon boo dajee. ku mel ni maam jaara mi nga xam ne mm. daa bëgg fukk juróom te ko du nangu di dem ak yow yoon mm. parce que parce que bu demee yow bu demee ak yow yoon mun nga ko gañe ndax fii xaalis mun na lijjanti lépp mooy mooy gañe procès yu bari ci boo demee tribunal boo demee foo foo mën a nekk rek xaalis moo fay daw pour wane ne ni ñuy def di corrompre nit ñi di dox ci seen kaw di leen teg métit surtout ñi nga xamante ne ay njaboot lañu dafa metti nga jël nit maam jaara di ko liggéeyloo di ko fóotloo mu di la fóotal di daw sa kër élekool nga yem ci fóot bi yaa ngi ci ñàmbaas leneen pour mu liggéey la sa kër ba pare nga bëgg a tëdd ci kawam xëy dàq ko comme li nga wax noonu amul doole bu mu demee police amul fu mu kalaame mais du boo ko yóbbee police du fayu parce que amul kattan gi. mais am na lu mu a fayu àq day dal. waaye police yàlla bii. Hmm. yàlla mooy policier bu mag bi mooy àq bi may wax. gis nga lingeer hmm. ñu ngi caaxaanee lu doy waar. Hmm. te am solo. muy sunu borom. ki nga xam ne dalay topp ba si biir bàmmeel. te du la bàyyi. looy def ci àdduna war ngaa sóor kooku. ki nga xam ne. day roof bëccëg rocci guddi. <laughs> wala mu rocci guddi roof bëccëg te yow doo ko yëg. mooy su la nee dinaa la jàpp nag boo tëddee waroo wallaay nit ñi gis nañu lool de maam Jaara nee naa am xam ne duñu tiit duñu tëdd ba raf. lu mm. xaalis soo ko amee. Mm. boo boo boo boo bewee rek. Mm. xaalis day bewloo nit. Mm-hmm. te boo bewee da ngay dem ba yaakaar ne yow dootoo dee. da ngay dem ba yaakaar ne yow sa xaalis mën na lépp day fi ne xale rek xam nga xale tey. Mm-hmm. day jàpp ne papaam mën na lépp. wallaay xale moom day jàpp ne papaam mën na lépp. léegi boo amee xaalis bew noonu lay def ci yow da ngay jàpp ne yow mii kat. Mhm. sa xaalis mun na laa permettre nga am lépp sa xaalis mun na laa permettre nga def lépp. sa xaalis mhm. sax mën na laa permettre ba yow doo dee. Mhm. te des fois sax nga dégg ñu naan ah. borom xaalis de moom. Hmm. borom xaalis du xalaat sax dee ndax duñ gaaw a dee dee da leen di. ruus yaakaar ne bu ñu tëddee ñu ngi njaganaayoo xaalis bi. waaw kay mu metti ba bëgg a dee. Mhm. maam jaara mi ngi noonu li may wax rek ci yitte askan wi nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax xaalis li mu mën a defar bari na. Mhm. waaye li mu mën a yàq moo bari mi ngi mel ni lamine lamine ni muy defaree noonu lay yàqee. Mhm. mu metti ba bëgg a dee gis nga ne xaalis maam gis nga ni muy duggee aussi ci li nga xamante ne li ma wax keroog rek mooy ci natt yi koo xamante ne nee na tungaañ keesu jàmbur dem ak moom te du ci am fit bu dem duñ ci am lu ñuy tiit li ngay wax rek toujours yàllaa ngi taxaw waaye ñun faale wuñu yàlla faale wuñu ku yàlla bind dañu defe ne fi mu ne nii maam jaaraak président wa ku mu mën a doon bu taxawee amuñu lu ñuy raf ndax dañ naan ñi ngeek lu dul jeex mën nañu fay ñu fay mais dañuy corrompre ki nga xamante ne moom moo nekk justice pour ñu mën ci génn xam nga gëm nañu dee hmm. mais la ca ginnaaw dee hmm. loolu lañ gëmul te gis nga lingeer hmm. xam nga boo amee xaalis da am fit da lay may fit da lay may fit xaalis da may fit baaxul tey jii dinga am xaalis te yoral nit xaalis. Eh. ñu nga ne xaaral dem tëj làmmiñam gis nga fa xaalis di dugg. wallaay fu garaaw lay dugg kii natt bi comme lekk naa ko. Hmm. xaaral ma tëj seen làmmiñ ba kenn dootu ci wax. mu jaral la nga jóge fi dem ba ginnaaw feerlo. ginnaaw. <laughs> maam Jaare ñëwaatal ginnaaw fan. mu jaral la nga jóge fii Dakar. Eh. dem ba ginnaaw feerlo. Hmm. yóbbu sa xaalis. Hmm. soo ñëwee convoqué ñëpp. togg sa mbaxal mu ne damay togg mbaxal puuj paaj togg sa mbaxal mu ne muut <laughs> ne dem leen sangu na bu ngeen ñi bu ngeen ñëwee nag ñu sañ sa nag toog nag wax ci kees gi ah. ñu dem nga suy ko ci ba am saf saap ñu ñëw toog lekk ku ne ne muut kenn dootul wax loolu xaalis da koy liggéey waaye xaalis dafa dugg ba ci biir maraboutage parce que am na koo xamante ne barki dem maa ngi waxtaan ak moom dinaa fi yëkkati thème boobu waxtaane ci maraboutage li nga xamante ne li muy yàq xaalis da ciy dugg bu baax a baax mi ngi noonu comme li nga wax dem ci sëriñ fay ko xaalis bu dul jeex ne ko téyal ma sama dëkkandoo bi te maam jaara xaalis dem na ba dugg ci biir entreprise yi dem na ba dugg ci fi mel nii milieu média comme nii xam nga ni xam nga li ma lay wax. parce que mhm. yaakaar naa ne am nañ ci tuuti parcours. Mhm. Ah, liggéeyaloo nit ay weer nañ ci bàyyi xel ñi nga xamante ne dañuy yor seen i entreprise jóoba jubba gàcce ngalaama kenn du mañik nee naa li nga xamante ne mooy émergence mu yëkkati ko émerger lii ci réewam yëkkati télévision bu mel nii jàppale ndaw réew kooku bokkul ci ñi nga xamante ne dañuy trahir wala ñuy def naka sudul noonu waaye ñi nga xamante ne mooy ñu safaanoo ñi dama koy laal baaraam bu baax parce que gis nañ ko ci du jeex ay kaayi kaayi kaa di liggéeyloo ay nit mu nekk ci sa bërëb di la dawal ku mel ni Linguère wala ku mel ni Maam Diarra wàcc sur terrain dem di defi seen i reportage weer jot nga war ko fay dawloo ko 4 mois man dama koy joxañ di xaar nag fu wax war mën a jibee ñu teg lépp ci waxukaay wi nañ ko moytu bu baax a baax a baax Maam Diarra ñi yor entreprise yi di dox ci kaw nit ñi di lekk seen i ñaq. ñaq dafa fort trop. xam nga Mayib Diop dafa xam àq. nit da ngay xam àq. Mhm. Linguère alal na la mag. su la alal magee du la tiital. dëgg la alal na la mag. dëgg la xam nga nu alal di magee doomu aadama. Mm-hmm. nga judd. Mm-hmm. ñu yar la ci doylu. Mm-hmm. yar la ci tabe. yar la ci dignité. yow loo am du fees say bët. dëgg la loolooy alal na la mag. gis nga entreprise yi. li ci am dafa jar a duut baaraam. waaye man Linguère sama xaalis alalu militaire la ku ko lekk dem guerre. <laughs> mbaa da da ngay dem solitani man sama xaalis. alalu militaire la ku ko lekk dem guerre. mais dafa bëri. Mmh. ci milieu yi ngay wax ci milieu yu milieu média rek sax. Mmh. gis nga entreprise yu bëri. Mmh. ñu ngi liggéeyloo ay nit. di leen exploité. day mel ni tey li ay étranger yu jóge seen réew. ñëw fi ñu yaatal leen comme ni ñuy wax naan Sénégal dëkku teranga la. ñu am seen i entreprise planté ko fii. di liggéeyloo ay doomi Sénégal. di leen fay loo xam ne. li ñu leen di liggéeyal moo ëpp li ñu leen di fay. da ngay gis ku liggéey bay bëgg a dee yoonu ay ay ay lu diis bay bëgg a dee. ñu la. dañ lay exploiter ci sa biir réew te loolu état mooy premier responsabilité responsabilité responsabilité bi njëkk. ci mhm. état la. parce que tey amaana am na yow loo xam ne yow soo ko bëggoon ci seen réew. Mm. doo ko fa mës a am. Mm. demal ci réew jàmm nga naan na nga faa bëgg suuf birig sax doo ko fa am. yow nga ñëw ci suñu réew. Mm. ñu yaatal la bay bëgg a dee. nga am fi loo xam ne sax doomi réew amul ko fi nga def planté fi sa entreprise. sonal waa dëkk ba di liggéey liggéeyloo doomi réew mi di leen exploité di leen fay ay journée 1000 francs ay journée 2000 loolu teguwul fenn te loolu suñu état moo moo moo moo njëkk a am ci loolu. xam nañ yàq dafa bari mhm. alal li muy brisé mhm. dafa bëri mhm. ba ci entreprise yi lii man a wax nii ba ci état yi ba ci état bi ci boppam alal dafay dugg fa du yàgg gis nga comme comme lii ma expliqué nii tey jii xam nga tey jii bu fekkoon ne sax ñoom jox nañ leen suñuy suuf ñu ñëw indi seen i seen i seen i entreprise jàngal suñuy ndaw liggéey jëlaat leen di leen fay lu ko jar su boobaa da koy jar dëgg la su boobaa da koy jar. Mhm. mais man gis naa fi ay entreprise yoo xam ne ay étranger ñoo ko mhm. moom. ay doomi Sénégal di fa liggéey suñu mhm. wàccee journée 1000 francs la ñuy wàccee. loolu du yoon. dañuy xool alal gi naka lañ ko war a mën a départager. xam nañ ko xam nañ ko bu baax a baax maam Diarra état boobu ngay wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy les premiers responsables ñoo ko gën a xam mais dañuy li ngay wax li ma wax sànq rek day demee boor. ségrégation day daal di dugg am na ñoo xamante ne dañu bëgg toujours di di leen néewal doole man xawma ma nan nan lañ koy defee soxor googu ak ni ñaq doomu aadama fooree ngay daw du matin au soir maam jaar yow paas sax duñ la ko jox ñaq boobu gàtt fan yi li tax mu bari loolu la de deeyu gaaw yi ku ci bàyyil di lekk ñaqu nit maam jaara xam nga nee naa léegi joxoñ naa xam nga ko ci nekk ci li ngay liggéey ci nga mën a wax muy milieu média bi lu tax ñun ñu mën a waxee ci baat bi yàlla may ñu ko naam am na ñu ñu ko dàq fuuf waaye tamit dañuy gën a ñaax rek toujours waxuñu ñi nga xamante ne ñu ngi tegu ci raay bi ñu safaanoo ñoo tax ñuy wax nañuy moytu àq bu baax a baax a baax surtout ki nga xamante ne nee naa la jànq la xam nga nee naa léegi ki xam ne day fóot moo domestique bi nekk ci biir kër gi tubaab mooy tuddee baat boobu waaye min na daan doole lañuy ñuy wax mhm. li mu mën a liggéey ci biir kër wan fa mën a jouer dafa bari mhm. da gis koo xamante ne xale bu ndaw day nekk ci kër patron yi ñaar lañu muy jëkkër ak jabar toujours ku jigéen kii moom mooy def maltraitance boobu ci biir kër gi. Mm. mais à chaque fois booy xool ku góor ki day dawal yërmande. yërmande lay joxe ba bu weer dee day joxe salaire bi pour pour nga xamante ne mooy miin na daan dooleem liñ ko war a fay ñu di ko ko fay. Mm-hmm. mais xaalis buñ ko joxee madam madame jël ko dugal ko ci natt bi. Mm. gis nañ ko fi ay yooni yooni yoon. ba weer bi day dee jànq bi ñëw taxaw di laaj xaalisam jëkkër ji naan ko ana fayoru ndaw si ana fayoru xale xale bi euh, jabar ji soxna si di làkk ay daadaa. di wër di tourner autour yaa ngi xool loolu maam jaara ñu koy def yenn euh, min na daan doole yi mhm. Mhm. xam nga miin na daan doole mhm. baatu olof la <laughs> tubaab di ko wax domestique comme ni nga ko waxee waaw mais euh, lingeer mm. gis nga nit loo nangu ñu teg la ko rek dañ la koy teg mm. man man liggéey naa min daan wallaay daan doole la man liggéey naa ko mm. xam nga lu ma ko bàyyiloo fomp beeg yooyu sama loxo yi commencé yàqu ma bàyyi ko. dëgg mais gis nga nit. Mm. liñ lay fi ñu lay teg yow yaa fay teg sa bopp gis nga gis nga ñàkk. Mm. ñàkk du dara. Mm. sunu borom mooy séddale sunu baaraam yi ni mu ëppantee. noonu la wërsëg yi ëppantee. Mm-hmm. da ngay gis ko am lu ne gàññ. ko am yam. gis ko amul dara. Mm-hmm. yàlla moo tëralee noonu ay mbiram. Mm-hmm. léegi nag yow ci sa ñàkk googu. bul nangu na ku ci sa ñàkk googu. bul nangu ku la ku man damay waxanteeg yow lu leer. Mm. man kat damaa ñëw fii pour daan sama doole. Mm-hmm. lii ak lii ak lii laay liggéeyee. bis boo boolee lu ci bokkul. Mm. loolu bokk ci duma la ko liggéeyal. Mm. léegi nag foofu nag la problème bi di am su ko defee ñoom tamit dañuy fipp naan fii man maa fi patron bi téye sa xaalis. Mm-hmm. léegi nag bu fekkente ne yow dangaa mel ni man oyof mbubb amuloo doole. Mm-hmm. amuloo ñemewoo yoon. parce que ñi fii ñu bëri ñu ngi dem Linguère te xamuñu lan mooy seen droit. wallaay boo xamul droit rek. da ngay ragal yoon. barki dem ma gis naa ci benn kaa benn xale bu jigéen boo xamante ne xale la soo ko gisee da ngay yaakaar ni mag la te du mag ndax taxawaay bi ak ni mu précoce muy daan dooleem di liggéey liggéey liggéey bu metti moom xam nga la lañ ko jëlee woon bale lañ ko jëlee woon ak nettoyer. mais mu gi dañ ko sëf pot ma. maa ci teg sama bët kenn waxu ma. ma ne ko woo ko ba mu ñëw ma ne ko yow élève nga da ngay jàngi mu ne ma damay jàngi bu école ubbee madame xam nga ñoom suñu mbokku séeréer yi dañ naan madame. Ah. madame mii laay xaar mu jox ma sama xaar gis nga madame mii laay xaar ba école ubbi xale bi noonu la xëyee ñu takkal ko ay pot noonu la demee. ba tey ba sànq. te pourtant maa ngi ko bàyyi xel bu baax a baax xam ko bu baax a baax muy xale bu baax. fu at mii deewee nga xamante ne dañu dugg ci vacances day daw takk ndigam te bari na ci xale yu jigéen yoo xam ne ah. min na daan doole ci la ñu jënd seeni i fourniture ci la ñuy jàppale seen i wayjur mhm. waaye ngalla nañu ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen i njaatigee nañu dawal yërmande te xam ni àdduna du kër du ker mhm. li ngay wax rek moo ci nekk li nga dul nangu ku la ko teg bul ko teg sa nawle mhm. mbub mi nga natt ci sa kaw jotu la bu ko solal sa nawle dawaleen yërmande ci xale yi parents yi nañuy dawal yërmande am na ci parents yoo xam ne seen doomi jàmbur comme comme poubelle. Mhm. seen doom rek lañu gëm ñoom la ñu teg nit beneen doom. Mhm. robine la. Mhm. mais ñoom seen doom or la. mais loolu dafa ñaaw maam jaara su ko defee toujours Linguère la ci émission bii di yitte askan wi mi ngi noonu thème bi yaatu ba bëgg a dee ñu waxtaanee alali àdduna li alal mën a def maam jaara alal am na feneen fu mu dugaat suñu imaam ñu ngi taaxarlu xam naa ne mi ngi ci yoon bi li nga xamante ne mooy dinaa ko wax tey muy drogue maam jaara drogue bi ni muy def ci société bi metti na te li ko waral mooy xaalis. drogue bi ñi nga xamante ne mooy suñu jàmbaar yi nga xamante ne ñoom ay boromi galon lañu. soit ay policier walla ay gendarme ñi ngi ci kaw tali bi. ñu ngi leen di nuyu de passage. ñoom ñi ngi def li war sëkk ci tali bi waaye nag toujours ñu safaanoo ñi jaxasoo ak ñi nga xamante ne mooy ñu baax ñi. Euh, jël drogue bi ñoom ci seeni bopp di ko téye ak di ko joxe maa la wax li Mame Diarra. waxuma ñi nga xamante ne ñoom ñoo tegu ci raay bi de toujours ñi safaanoo ñoo tax may wax. Mm-hmm. am na ñoo xam ne drogue bi dañ koy garder carrément def ko seen aliment def ko seen ñam. Mm-hmm. xale yi nga xam ne ñu ngi leen di jàpp parce que def naa ci reportage ci drogue bi xale yi nga xam ne dañ leen di jàpp ci tali bi ndax drogue bi xale yi ndaw ñu leen di koy jaay wala ñoom ñuy dem école di ko jënd gis nga sachet yi ñuy jaay ci école yi. Mm-hmm. ñu yàq seen bopp. parents yi nga xam ne bëgguñu seen doom toujours li nga wax rek tàmmal xale xaalis. léegi nga tàmmal ko tumuranke nga jox ko xoolul bonbon xoolul boisson drogue lay xool ndax lan influence bi. Mhm. dugal foofu maam jaara xam nga Linguère. Mhm. métier boo gis am na directeur. très bien. waaye métier boo gis am na sukk. am na sukk. ni mu ni mu amee directeur. Mm. noonu la amee sukk. Mm-hmm. te gis nga drogue. Mm. dafa nekk lu doy waar lu gaaw mën a yàq koomu réew yàq jeunesse su réew. Mm-hmm. te garabu fitna. Mm. bu la leeree ne boo ko jëmbatee. Mm. saa yu màggee doo toog ca ca suuf ka di ca keru. <laughs> mu ko jëmbat. dëgg la te dorog garabu fitna la. wallaay te gis nga Linguère. Mm. doomu baadoola yu bari ñu naan leen doomi baadoola. mooy ñi nga xam ne. suñu ndekkee duñu añ bu ñu añee ñu reer. dëgg la ñoom talu ñu dorog de. dorog lu ci bëri. ay doomi ñi ñuy wax naan ay doomi ay doomi borom barke. xam nga boo amee xaalis. dañ lay tuddee borom barke. Mm-hmm. yow nag boo amul xaalis. Hmm. yaay baadoo yaay baadoo la bi. mais. Hmm. li ku ci ne li nga nekk. Hmm. bu yemal xiyaamee lan koy xam. fa lay leeree. léegi doom yi borom barke yi mooy doom yi ñi nga xam ne dañoo am alal. booy xool lu ci ëpp. ñoom ñooy utiliser drogue bi. gis nañ ci ay kaayu kaa du jeex. ñoom ñoo koy tax mu circuler. ñu fu mu egg ñoom ñoo ko fa yóbbu. doomi baadoo la tal na leneen. xam nga lu tal mm. wut lu mu dem fee taxaw ci tali bee mm. gàddu musuwaaram di jaay mm. mbaa mu segg kafeem di jaay mbaa mu gàddu ndoxam di jaay ñooñu tal nañ leneen te gis nga uh, drogue lu état mën a li ki réglé la. maam Diarra parce que liy dugg suñu réew mi. dañ koo contrôlé wul. doguma la balaa ngay laal ci état bi ak ma ne état bi ñi ngi def la leen saf boo bëggee dégg-dëgg mais dama la wax ne la drogue bi may wax léegi li nga naan doomi baadoo la déggoo ma tudd wax ba tudd influence bi am na xale yoo xam ne seen yaay li ñu wax rek moo ci nekk seen loxo jotul seen ginnaaw amuñu dara te pourtant ñu ngi sacrifié di leen jox pour ñu mën a tekki mais xale boobu bu demee xale boo xam ne boppam dara nekku ci kopp la ngeen baal ma ci kàddu gi parce que am xale yoo xam ne xamuñu dara ay moomin la ñu gis leen rek ñuy dem ngelaw leen di yóbbaale nga gis koo xam ne dañ koy dugal ci drogue bi dugal ko ci drogue bi mooy dàq tox koo gis mooy dàq naan koo gis te kooku buñ la waxee fa mu dëkk ak na mu mel doomi nit ku baax. yaayam di daw rek la xam xamul leneen mais dugal nañ ko ci milieu drogue bi ba moo dàq utiliser drogue ki nga xamante ne moo koy jaay. waaw waaw xam nga lu tax. Hmm. dañoo bàyyi sunu doom yi dañ dañ ci génnee loxo yàlla. Hmm. yàlla téye loxo. Hmm. xam nga lingeer yow ak man ak keneen ak keneen a ci yam tey ku ci am sa doom mu am deux ans trois ans. jardin nga koy dem dugal. mu naan la bonjour papa. bonjour maman. Mhm. wala mu naan nga naan ko eh laisse ça eh laisse reste gis nga ñun dañoo roy li ñu jël moomuñu ko. roy dàq li ñu jël lañu moomul. Mhm. on a papa papa yooyu dañ koo moomul. yooyu moomuñu ko. dëgg la foofu lañ dugal suñu doom yi. yàlla bàyyi ñu ak suñu doom yi. fekkoon dañoo jël suñu doom yi à bas âge. Mhm. dugal leen alxuraan. ñu dem ca daara jee toog. soo loolu leen wax ci alxuraan ñu xam ko ñuy jàng di tari. nga yaakaar nañ dem ay ñu leen di ci ay doro yàlla moo ko dul nangu mhm. su boobaa suñu borom moo la koy téyal ndax moom nga ko dénk mhm. mais li ngeen ñun ñii ñëpp mhm. ay responsable lañ ñun am nañ ci responsabilité parce que ku ci am doom jardin d'enfant nga koy yóbbu xale yi nga xamante ne dañ leen di yóbbu vacances yi nga xamante ne même pas vacances dañ leen di yóbbu ñu dem daara dem jàng ji alxuraan alxuraan la ñu wax parce que day dugg ci seen xol mais xale boobu nga xamante ne euh, tey jii nee naa xaalis fi muy dugg toujours dafa bari. parce que boo waxee xaalis di nga dugg ci thème bu nekk. toujours xaalis day ñëwaat bu dee violence day dugaat. Euh, xale bi nga xam ne joxe nañ ko ci daara ji mu dem jàngi alxuraan fu mel ni fi ba Kaolack exemple lay joxe. xale bi dem sëriñam di ko fitnaal di ko dóor. ba mu cay jëlee yenn ñaawteef yi ak yenn gaañu gaañu yi ba léeg-léeg nga xale boo xam ne li oustaz wax keroog fi tam day dem dootul nekk parce que lan sëriñ bi da koy teg ne ko demal indi xaalis demal journée boo nekk soxla naa ci temps som nga indil ma mais xaalis boobu ñu koy jox sëriñu daara bi pour lan la maam jaara kooku xam nga sëriñu daara hmm. dafa am hmm. ne sànq nee naa la métier boo gis am na directeur waaye métier boo gis am na sukk hmm. ñooñu ñooy sukk sukk daara yi ñooy sukk daara yi parce que fekkante ne yow da nga jàng alxuraan nga xam li yàlla wax ci alxuraan nga xam li yàlla wax ci xam-xam bi nga xam ne soo ko amee nga trace nga jox ko nit nga jox ko nit yool bi nga ci am kon doo fitnaal xale wala nga di ko dóor ba di ko gaañ. bari na ci maam jaara li may wax ni bari na ci ni am pagaay mais tamit foofu. Hmm. xam nga man xam naa état dina dama leen contre. bi laay hmm. contre ma leen. wallaay dañuy wax xam nga luy problème hmm, xam nga état dafa dooleel école. école français yi. nga xam ne histoire la Joor sax. la Joor mi nga xam ne sa maam la mm. xare ci sa réew sax mm. histoire am sax mm. duñ la ko jàngal normalement dañ ciy jël trois paragraphes rek wala quatre dóor la ko nga jàpp ne loolu am fekk na ñoom dañ la tegal sax yoo xamoo ko laa dóor école yooyu mm-hmm. nga xam ne duñ fa jàngale maam Ahmadou bam wala ñu jàng ñu jàngale fa maam Maodo Malick jaar-jaaram li mu def ba egsi fii yooyu suñ ko doon def wax suñu doom yi du jar sax ñuy dem daara mais école boobu la nguur gi dooleel bokkul ak daara bi nga xam ne. Mm. daara yow sa daara bopp la. yow mm. loo def yow sa bopp. bu fekkoon ni ñu doolelee école ba école am doole noonu mm. lañ doolelee daara ci koom-koom. ci xaalis ci alal. Mm-hmm. kon mm-hmm. seriñ boobu. Mm-hmm. du sax jàpp xale bi di ko yalwaan loo naa ko demal utal wala di ko dóor. parce que dóor yooyu soo gisee muy am. dañ lay yalwaan loo. di la sas. ay journée mille cinq cent. wala journée deux mille. fekkee motul ci la dóor yooyu di commencé am. mais bu fekkoon ne ñoom. am nañ la nga xam ne mm, mm. dooleel nañ leen ci koom mm. dooleel leen ci dund parce que gis nga lingeer yor ñetti xale sax dafa metti wallaay ci dund ndekki ay waaw waaw waaw mu feebar nga faj nga rawati nga ci équipe boo xam ne ay taalibe mu nekk ay ay xale war a lekk war a ndekki war a añ war a leer war a reer wallaay metti na ñooñu boole bu ñu amul koom force xale yi il faut que ñuy yërwante xam nga ni place xale du mbedd la place de l'enfant c'est pas dans les rues placeu xale ecole la wala daara. Mm-hmm. bu ñu moderne bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu moderniser woon daara. Mm-hmm. comme ni ñu defaree ecole mm-hmm. kon yalwaan du am ba ñuy dóor xale yi ba di leen gaañ. yalwaan du am ba ñuy dóor xale yi waaye man. foofu tamit da ngay xool ni alalu àdduna. alal bii ñuy. loolu moo tax ma dugg fasar fasare waroon naa dugg foofu. loolu moo duggoon foofu tey ku mm. bëgg doomam jàng alxuraan dina ko jàng. Mm. ku bëgg doomam jàng leneen moo tax ma dugg fa daara yi du ñàkk faaw ñu fa dugg di ko wax parce que tamit dafa metti joxe sa doom daara yaakaar naa ni ki koy jox amaan na sax ndaw sa joxe yaay ja joxe doomam kam ko jox nijaayam la ko jox wala mu jox ko raxam ndax danaan kooku sëriñ la li mu xam ci alxuraan war na ko mën a def doom parce que toujours nee nañu alxuraan mooy ki ba pare waaye yow tamit di ko def loo xamante ne di ko ko laaj loo xaalis ay weccat weccat mooy lan di ko laaj loo xaalis ah ouverture de classes nga xam ne day metti surtout suñu jamono ji mm. nga xamante ne xaalis mooy daw partout mm. boo amul xaalis doo wér boo amul xaalis doo lekk soo amul xaalis doo mën dara dara dara dara dara sol sax balaa nga koy def yére bu baax foog nga dugg ci marché yi waxaale mais yére dafa cher kenn mayewu ko kenn mayewul yére lépp a metti rawatina xale bi nga xam ne xamul dara ñu yox la ko ne la jàngal ko defal ci moom xam-xam defal ci moom alxuraan nga jël xale bi fitnaal ko yóbbu fitam ba xale bi day génn doon agresseur doon saay-saay ngeen baal ma ci kàddu gi di jël alali jàmbur di tafu nit ñi parce que sëriñ bi tàmm na di ko laaj xaalis boobu. Mm-hmm. comme mënu ko am li muy préféré maam jaara mooy dugg di agressé di këf. di nangu yëfay ja yëfi jàmm xeetu ñaawteef yooyu surtout xale mm-hmm. xale moomin la xamu dara mm-hmm. xale yi dañuy dem ba màgg affaire u caay-caay boobu day des maam jaar ci seen bopp mm-hmm. xam nga xale biñ koy yóbbu daara nekkul pour mu mujj mu safaanu parce que daara bu dee daara rek bi tax ñu naan daara daara du yàq xale daara dafay defar xale mais léegi daara bu njëkk ak daara léegi. Hmm. dafa yàqu. Hmm. parce que bu njëkk dañu prôné woon alxuraan moo nekkoon ci kanam. Hmm. léegi tey soo bëggee sa doom jàng alxuraan il faut nga dugal ko internat. interné ko carrément. te internat boobu. fukki dërëm mayewu ko juróom mayewu ko cent franc foo nga génne ay junni ko xaalis moo ko joxe foo nga génne ay junni wala boo melee ni maam jaara yoroo junni yooyu da ngay obligé nag bàyyi sa doom mu dem ci ta ci daara ja parce que daara bu njëkk lingeer dañu daan jàngal doylu Mm. jàngal la souffrance. Mm -hmm. jàngal la tumuranke jàngal la toroxlu. Mm -hmm. jàngal la dem ndax lingeer. -hmm. ñun ñëpp ci toroxlu la ñuy mujjee. parce que bis bu doomu aadama dee. luñ koy sàngee du juróom-ñaari mètre. lay wallaay rek lan nga deseeti ci àdduna kon yow toroxlu mënul weesu loolu. ñu nga suuf ba mu xóot. nga xam ne da nga daan sangu sax bëggoo suuf laa la. bu la suuf laalee nga def nii faxas ko. ñu nga suuf ba mu xóot dugal la ci toroxlu mënul weesu loolu. loolu nag daara. daf koy def ci yow. léegi nag bu ko defee ci yow xale bi. gis nga boo demee ba màgg. ay dorog yii. ay yamba. Hmm. ay cigarette. Hmm. yooyu yëpp yàlla da koy raxas ci yow. da koy génnee ci yow parce que lu la intéressé parce que yooyu yëpp ay xeetu drogue la ay cigarette kii yi kenn xamul yooyu yëpp yaa am na ñoo xam ne ñu ngi koy tox. Hmm. du leen def dara mais am na fooy toll yaa koy bàyyil sa bopp. ndax loo gis rek am na app. su ko defee rek dañuy dem régie dem dugg ci suñu deuxième parti jëli suñu benn page de pub ñëwaat. alhamdulilahi rabbil wasalaatu wasalaamu ala rasulillah man la seen mbokk Ahmadou Makhtar Kanté ñu gën ma miin ci imam Kanté may sawar lool ci di leen proposer benn émission boo xam ni ñu ngi ko duppee taarul islam fii rek ngeen mën a amee boobu émission ci réew mi TV tous les vendredis de 9h à 10h bul ko fàtte bul ko rate wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin merci la régi jaa ngeen jëf bu baax a baax a baax ñu ñëwaat ci suñu deuxième partie waxtaane toujours alalu àdduna ci yittey askan wi télévision bu mag bi di réew mi TV moo leen koy jox saa su ne waxtu wi bu jotee ñëpp dañ koy yàkkamti ndax thème yi ñu fi joxe lépp luñ fi wax rek ay. fee la mhm. lépp loo xamante ne actualité la moom la ñuy taxawal fii su ko defee rek maam jaara comme ni ma ko waxee rek xam nga ñu ngi woon léegi ci taalibe yi nga xamante ne dañ leen di jël di leen joxe ci daara yi ñu leen di fitnaal ndax alali àdduna léegi euh, gis nga ni metti na bay bëgg a dee sëriñ yi ñoom i tamit am na ñoo xamante ne xam naa ni nañ ñu baal ci ni ñu koy waxee ndaxte dañuy yaakaar ne dañu leen di clash mais clashuñ leen dañuy ñaan rek nañu dawal yërmande ci xale yi nga xamante ne ay taalibe lañu ñoom ñu war a def xam-xam ci seen biir waaye am na ci sëriñ yoo xamante ne ñoom itamit la yàlla xam doy na maam jaara mm-hmm. ñoo xamante ne ñi ngi leen di jox daara pour ñu jàngale mm-hmm. waaye jàngale wuñ am na leneen luñ ci ñambaas mm-hmm. ndax alali àdduna wax naa léegi ba tudd drogue bi waaye ñoom itamit dañ ciy boole yeneen i xeeti ñaawteef di ko def maanaam mel ni kuy def genre trafic ci xaalis ndax alalu àdduna xam nga ñooñu duñu ay sëriñ ñun du ma mm. bëgg sax ñu leen di woowee ay sëriñ mm-hmm. parce que sëriñ mm-hmm. dafa def moo la boo xam ne mm-hmm. dafay ëmb lu bari xam nga tey boo demee daara yi njool fuuta xam nga mm. njool fuuta doomu maam Abdou Aziz Dabakh la ndeysaan gis nga boo demee daara ba gis ni xale yi seen toogin rek mm. ngay xam ne ñii ñii am na lu ñu def si ñoom nga dem poroxaan poroxaan ca soxna maam jaara ya nga xool xale yi xale bi la gën a tuuti moo la gën a sell xale bi la gën a tuuti moo la gën a set ñan ñoo leen yor ay doomi daara mm-hmm. ay doomi daara kon yow mi nga xam ne da ñëw ci daara mm-hmm. pour yàq daara mm-hmm. doo sëriñ doo doomi daara leneen nga leneen nga leneen nga mu metti lool de passage dañuy nuy ki nga xam ne mooy sëñ Mbay Abdou comme ni nga ko waxee ñu koy woowee Njool Fuuta si ñu ngi leen di ziar bu baax a baax su ko defee rek suñu invité mi egsi na dafa tardé man daa xam naa ni daloon xéewal ku dem añ baa ko fa téye woon ceeb baat ñoom seen su ko defee rek dañ koy dalal nuyu ko ziar ko dalal ko bu baax a baax a baax yow oustaz naa la amiin jërëjëf soxna Linguère soxna maam Diarra ñu leen ziar. ñu ngi delloo ziar TV euh, yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. di leen ñaanal yàlla tawfiq. Mm-hmm. di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ci li ñuy jàngale nii. amiin yaa rabbi defe naa euh, ku fi dégg ay kàddu. ay jàngale la. ay kàddu defaral la. te loolu mooy li am solo. kon ñu delloo leen kàddu gi incha allah. mu ngi noonu xam naa ni Oustaz Habib Seye. ñi la war a say kal waroon naa leen xam. ba mën laa boole tey xam naa ni ceeb ceeb bee neexoon rek moom moo la fa téye woon yaa Oustaz bu ko defee fekk si nga ñu tey ci suñu thème bi nga xamante ne moom lañu tàmbali woon altine tey jii di ba ñu àggali ko waxtaane alal àdduna alali àdduna li mu mën a def fi mu mën a dugg li mu mën a yàq alal yàq na ay famille yàq na ay diggante brisé na ay couple yàq na nit ak doom alal dugg na ba fekk si ñi nga xamante ne ñooy sëriñu daara yi ak ndongo yi di leen def loolu naka sudul noonu li maam jaara naan du ma wax ne ñoom ay sëriñ lañu leneen lañu mu metti ba bëgg a dee sëriñ yi nga xamante ne dañuy laaj ndongo yi xaalis boo jëlee sa doom mu mel ni sa rakk nga ñu yóbbu ko fi ba Kaolack wala fi ba Tamba wala fi ba feneen wala fi ba Ndar nga xamante ne alxuraan rek la jàng ñu bëgg alxuraan bi jiitu ci dënn doomu aadama bi au kon mu def ko ci mi ngi yàkkamte li mu koy jàngaloo mooy li nga xam ne saa yi ñëpp mën saa yi nga xam ne moom la nit ñi gën a mokkal loolu la koy jàng pare wàcc loo ko ci tali bi ne ko demal uti koppar demal uti weccet xale ba su ndawee daw ba sonn amu ko mu ñëw ñu fitnaal ko ba mu jëlee ci euh, yenn métit yi ma bëgg yaa oustaz nga dugg foofu tuuti wax li alxuraan wax ak diine ci alal boobu xaalis boobu ak diggante sëriñ beeg ndongo bi aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil wasalaatu wasalaamu ala ashrafi xalqillahi sayidina muhammad wa sax bi wa sahbihi wa man ah, ñu ngi delluwaat beneen yoon di nuyu ñëpp leen ziyaare di wax ne yaa ngi ci thème boo xam ne am na solo lool waaye dañuy wax ne sax actualité la pour toujours ndax lan alal alal suñu boroom a ko njëkk a tudd moo njëkk wax ne innama amwaalukum wa awlaadukum moo njëkk wax ne innama ci làkki arab pour peek la yàlla dafa mel dafa naa ne lii ma leen di bëgg a tuddal bàyyi leen ko xel mm. mu ne alal ak seeni doom mm. ba pare daal ne fitnatu mm. dégg wax ji seeni alal ak seen doom ay fitna lañ ñel kon dégg wax ji bu baax dégg ko bu baax oustaz voilà buñ foofu damay delloo ci benn ci beneen mbir tam muy ginnaaw bu doonee fitna ba pare yàlla bind doomu aadama mm-hmm. def ci moom nafsu hmm. nafsu mooy lan hmm. mooy bakken hmm. mooy bakkan waaw bakken bëggul lu dul lu neex dégg nga ma bakken moom lu neex képp koo xam ne sa sa jëmm ji sa bakken moo not sa ruuxu su boobaa dootoo amati looy contrôler ci sa ci sa jëmm ji xam nga problème yi foofu la commencé waaw kon alal ji nga xam ne yàlla arab sax su wax maal maal la ko tuddee maal maal ñu ne maa aala ilayhi nafsu Mm-hmm. mooy li nga xam ne bakken dafa jeng jëm fa mm-hmm. muy xal muy alal mm-hmm. alal ci boppam bakken dafa jeng jëm fa soo bëggee xam loolu dencal alalu jàmbur tey oh. nga xiif wala nga am soxla bu jàmb mm. lan la bakken di wax jëlal alal ji fa ci soxla demal laal ko laal ko après nga fay yaa ngi dégg kon sa bakken moo jeng jëm foofu xalaatoo pourtant bu fi alal boo xalaatoo ne alal ji su fi nekkutoon nu may def kon war ngaa mun am ragal yàlla. Mm-hmm. waaye nag lii dafa am fu ñuy delloo. Mm-hmm. fii suñu borom di wax ne alif laam miim. Mm-hmm. ahasiba naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanun. dégg yàlla xam lu mu jublu ci alif laam miim donte mufassiruna yi wax nañ ko ba mu jeex tàkk. waaye nag yàlla nee na ndax nit ñi dañoo foog ne dama leen binte duma leen fitnaal foog ma fitnaal leen. ci la ñu fitnaale. alal ci lu ñu fitnaale ci la bokk. wallaay. Hmm? alal. borom kër bu nekk. boo xëyee di nga ne mm. dépense. Mm. dépense ndax suuf nga koy joxe. Mm. bant ngay joxe. xaalis ngay génne. kooku benn la. su ko defee alal jooju dem ba nga xam ne daf ñëw fitnaal ñun. lam ci lan la ñu fitnaalee mooy fàtte nañ ne compte dana am règlement de compte dana am. Mm-hmm. lan mooy règlement de compte. wattaqu yawman turjauna fihi ila llahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun faw yàlla dina teg jaam yi kenn ku nekk mu laaj la. Mm-hmm. waaw bu gaaw baa ngi règlement de compte atte bu wóor baa ngi noonu. yaa ngi dégg. Mm-hmm. dërëm bi foo ko fan nga ko jëlee. Mm-hmm. lu tax nga jël ko. benn par benn ba mu jeex tàkk. amul kenn kuy rëcc bés penc illaa man rahimallah yàlla ñu yàlla yërëm. saf yàlla ku mu yërëm. yàlla ñu yàlla yàlla ñu yàlla yërëm. amiin yaa rabbi nag ñu bàyyi xel ne àdduna moom alal. alaaxira mm. amul alal de. foofu xam nga lu fa lu fa lu fa xew. Mm. Mm. li fa xew mooy dangaa ngaa jëloon sama alal ci àdduna fa yow ma ko. danga maa toroxaloon ci suma alal nga ñu compter ñaata million la. Mm. ñu ne nañ teg. Mm. yàlla ne diwkaay yow li li nga seqoon ak kii anamu. Mm-hmm. nga wax say wax. waaw nangam nangam nangam amul lay parce que li gën a métti mooy bés penc ci bés la boo xam ne nii ci wàllu règlement de compte suñ ci taxawee. Mm-hmm. làmmiñ di wax. yàlla neen làmmiñ di wax. yow ma tachat alayhim. Mm. dégg day wax ba ci. wa juluuduhum der yi sax day seede suñu der yi day seede. suñu der yi day. day seede fi fi diw ba nga ko jëndoon diwee ko. fa nga ko defee woon nan la woon naka la woon ba mu jeex tàkk. dégg nga maanaam léppay wax. léppay wax ba mu des làmmiñ ñu tënk ko ndax làmmiñ moo doon wax fenn. Mm. fii amul fenn. dégg nga. Mm. bu demee ba yàlla di wax lu cër yi ne leen. Mm. ba cër yi di wax ne lu tax làmmiñ jox cër lu tax ngeen wax. cër ne ko na allahu alladi antaqa kulla shay yàlla mi wax loo lépp moo ñu wax loo ñun mm. ku ci mun dara kenn foofu amul amul agression mm-hmm. amul jël jël say nit mm-hmm. euh, rayal leen ma diw amu fa amul jël avocat amul avocat amul dara ñoom ñëpp la ñuy jugé mm-hmm. waa léegi xoolal alal jooju mu mu doon loo xam ne yàlla daf ñu ko jox pour ñu dundee ko mm. jaamoo ko ci gis nga dund doomu aadama fii ak ñu ngi fàtte ne mm. wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni piig hmm. ñu ngi fàtte ne yàlla bindul jinne ak doomu aadama hmm. lu dul ñu jàmm ko xam nga oustaz dafa ma fekk si léegi maam jaara ndax tàmbale woon naa ko sànq hmm. xam nga nee naa léegi ci samay commencement wax nañu moytu àq nañu moytu àq bu baax am na ñoo xam ne àq bi dafa mel ni ñu jël ceeb bi lekk ko naan ndox teen dara du leen ci fekk nañuy moytu àq bu baax ndax dama wax ba dugg ci ñi nga xamante ne mooy yenn entreprise yi di liggéey loo nit ay weer muy daw li nga wax léegi joxoo ko fayoo ko la nga war a fay la ma waxoon ca commencement ba fekk siwaat nañu imaam tudd na ko léegi ginnaaw bi ma la laajee léegi ci loolu nga xamante ne ci nga dugg léegi bakkan mooy topp sa naf sa mooy topp sa bopp bakkan bi li ñu naan bakkan jàmm la bëgg waaye na moytu hmm. di lekk loo xamante ne àq boobu nañu koy moytu rawatina fi mu laal léegi maam jaara dégg nga fi oustaz léegi yaa ngi koy dégg li mu wax léegi ci àq li mu wax léegi ci topp sa naf su bakkan ak ni ñuy defee alal ji daal maam jaara ñëwal foofu xam nga sànq dama ne. Mhm. Euh, alal garabu fitna la. Mhm. ku moytuwul nag da nga koy roose ba mu màgg. Mhm. waaye toog ca keru du la yomb. déedéet oustaz tey ci biir sëy yi. alal yàq na lu bari ci sëy yi. ndax tey jii dangay am sa borom kër. ngeen di sëy di sëy nga teggi sa natt bu am doole lebal ko boo ko lebalee sa natt bu am doole ngeen di dem di dem di dem ba lu moom léegi mënatulaa fay def na ci leneen histoire am na loolu moom naka lañ koy àttee. Mhm. bor lay doon ci diggante ñaari woy dencante yi wala comme ay way dencante lañu rek. Mhm. mun loolu mun na mun mun nañ ko baalante. Mhm. ah su ko baalee de yàlla yàlla baal ko mais su ko baalulee yàlla daf koy topp. kon dafay nekk bor bu ñuy topp si diggante ñaari woy ak jëkkër ak jabar nu ñu jege yoowee. déglul fi mu wax la <laughs> can. Mm. canu jigéen. Mm. tey sa jëkkër bi mu lay takk. Mm. dafa ñoo joxe can. waaw su ñëwee nga nangul ko ne ko nangu naa. lebal la sama can mm-hmm. déglu bu baax li may wax de nangu naa laa lebal sama can mm. can bi ñu ne ñaata la nga ne nangam la yaa xam la la la nga waxaaleeg moom mm-hmm. nangam loolu jot nga lebal ko ko bu mu jël la nekk ak yow ba yàlla dogal balaa mu laa fey moom mu génn àdduna mm. balaa ñoo jox kenn miraas yow la ñu njëkk a fay mu balaa ñoo balaa ñoo miraas yi yow yow borom can bi yow la ñu njëkk a fay bor daa garaaw dégg déglu bu baax li may wax est-ce que xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis laa wax ci télé laay waxee uh-huh. xam-xam la ñuy wax mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. demal saxi Buxaari saxi Muslim yonent bi daanul jullee ku am bor daawul jullee ku am bor ku deewaale bor mm. mu ne jullee leen ko yéen mm. lu tax lan lu tax loolu pour xam ak nu mu garawee dégg nit dana ñëw bés ñuy jël ci ay yowam di fay di jël ci ay yowam di fay. Mm. moo leboon diw moo moo moo jaayoon terrain diw. Mm. ah moo triant woon diw. Mm. ñoom ñëpp taxaw ku nekkoon ah sama àq laa jël si te foofu amul amul argent amul xaalis amul xaalis booy fay. léegi ñuy jël ci ay yiwam di fay. ay yiwam la ñuy fayee. di jël di jël di jël di jël ba mu jeex. am yeneen ñu tax ah yiw bi de jeex na waaye ñun ba tey fayuñu de. ah yàlla na léegi nag looy faye hmm. ñu ne ko nag léegi hmm. ñii seen bàkkaar yu bon yi defoon ñoom pour ñu dugg hmm. safara ah, léegi yow yaa ko yenu eh. ñoom tam jël seen bàkkaar yéen la ko jël yéen jël yéen jël yéen ba mu jeex tàkk ñoom ñu dem àjjana yoo nga dem safara boo faroon def pen bu te yàlla nañu yàlla musal ci yàlla di la xisaab sax nag waaw yow oustaz yaa ngi dégg baax rek moo la koy moo la koy may ak jub yaa ngi dégg kooku suñ ko sànnee safara déglu laaya bi yàlla di wax ne inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun mm. benn bésu alaxira mu ngi tolloog suba balaa jant bi soo alaxira mi mm, mm. ngi toll suñ junnee at mi ngi toll junnee atu àdduna alquran laa la wax de inna yawman inda suba balaa ngoon a jot alaxira mooy junnee atu àdduna mm-hmm. waa ku nar a def nag junnee attu alaaxira ci biir safara foo jëm. ñu koy da ngay dee yàlla nañu yàlla musal ci safara. te dee amu fa nag de. wallaay dee amu fa xam nga nit ñi gis nga nit ñi foog ñuy taxaw di waxtaanee suñu bopp. Mm-hmm. gis nga bés bi ci amul dee. Mm. gis nga bi yàlla na wax ne wa nufixa fi fi suuri. Mm. fa saaiqa man fi samawaati wal ard. Mm. yàlla ne. bu ñu walee baftu bi ku nekk asamaan ak suuf danga nga dee ba mu des suñu borom subhaanahu wa taala day dee. Israfil day dee Azraïl miy jël roxo yi sax day dee. Hmm. kon dee amatul. dee amatul. bi ginnaaw bi yàlla xisaabee jaam yi ba pare dugal ñi mu dugal aljana yàlla nañ ci yàlla boole. amiin waay ñi si des mu dugal leen safara yàlla nañ ci yàlla musal. Hmm. mu cel dégg nga de. Hmm, mu daal di ne yéen waa àjjana xuludun bila mawt yéen de fi ngeen di béel kenn dootul dee kenn dootul feebar yéen waa safara foofu ngeen di béel yàlla nañ ci yàlla muccal du dootul kenn dootul dee kenn dootul feebar mu indi dee ci boppam. def ko mm. comme xar rendi ko ci diggante ajan ak safara. Mm. kon dee amatul. dee amatul mm. maanaam oustaz su ma déggee sa wax bu baax a baax dafa mel ni ñun fi mu ne nii ñun dañuy jox convocation rek ñu dem wuy ji su yeggee war a mën a taxaw. jeex na mi ngi noonu. moo tax ñu tuddee ko yowmul xisaab. léegi da daa bëri tur bu ne yowmul baas. mooy bës bi ñuy dekki. baas mooy dekki. bi ñuy jógee ci bàmmeel yi dem taxaw ci ci péncam yàlla. bu mooy baas yowmul xisaab nag. Mm-hmm. mooy bés bi nga xam ne dañ lay teg règlement de compte. kaay yaa defoon. Mm. defaloo e, e, am na ñoo xam ne dañu def écran de kii écran géant lañ leen def. Eh, waaw ndax ndax ay kàccoor lañu woon. ay loolu moom dégg naa ñu bon lañ ñu bon a mm. bon lañ. Mm. dégg nga am na ñoom yàlla da leen di weer. diw mii moo defoon nangam ak nangam waaw mawqif bi ngay bokkal jamono way njëkk ak way mujj yëpp di xool naan ay diwa bon. kii moo def lii. gis nga ko. ma ñëw tam ci borom xam-xam yooyu ñu di wootee boroom xam-xam. bañ jox leen ay ndonga daara ñu sànq leen. Mm-hmm. ñëwal foofu. gis nga borom boroom xam-xam bu dëng yàlla nañ ci yàlla musal. Mm-hmm. dégg nga safara li muy metti métti. Mm-hmm. borom xam-xam bu dëng bañ dugal ko safara. dina tax waa safara fàtte seeni i dóor. <laughs> ah Oustaz loolu loolu dina tàng de. li may wax nii téere laa leen di wax téere la ñuy waxee. alxuraan ngay wax téere ngay wax. déglul bu baax li may wax. Mm. xadis jàngale na. Mm. borom xam-xam bu dëng. Mm. bu duggee safara. ay butitam dana génn di ko wër di lakk. Ah, waa safara naan xanaa du diw xanaa du diw diw sàngam moo nekk dale ñu ne waaw ñu ne yee nañ dem seetaan yi ñëw fekk diw mu ne ah yow xanaa yaa ñu doon wax nangam ak nangam ah kañ. ma leen ko doon wax de waaye nag dama leen ko doon digal. Mm. waaye man duma ko def. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. dama leen a digal lu baax waaye daanuma def lu bu baax. Mm-hmm. ma leen di tere lu bon te man dama ko daan def. moo loolu moo mu dugal fii su ko defee ñeetam seen dóor xaw a wàññeeku ñoom it ñu ne ah ndigam kii moo dugg nag kon nag mbir yi am na lu ci nekk. Mm. kon tribunal bi gën a rëy nag. Mm-hmm. safara. Mm-hmm. mooy diggante Iblis ak ñi koy liggéeyal. Ah, keroog boobu la ñu dem ba ku nekk naan diwoo diwoo tax ma dugg fi kii naan diwoo tax ma dugg fi waaye ñoo ne déedéet Iblis la Iblis ne déedéet bu leen ma fontoo de. Mm-hmm. yéen da ngeen a toppoon seen bànneexu bakkan ba dugg fi. bu ma kenn fontoo. dégg nga ji bu baax. naa ko kon nañ bàyyi xel ci wàllu alal. mi ngi noonu alal yi àdduna mi ngi noonu lim ñu mën a jural fii dina neex lool ñu nekk fi di yaataayu me ku ne di def la nga war a def mu mel ni tulleeg màlle mm. waaye cëy àllaxira cay yomal xiyaam bésu pénc taxawaay ba lee tax ñu wax naan ku ci nekk balaa ngay jóg di aji màkka la nga amoon ci ay bor na nga ko fay ndax xalaat des fa xam nga ni metti na lool lool nga jël alali jàmbur nit ki di dem ak xolam bu tàng moo tax ñu naan moytu leen àq hmm. nit ki baalaak xolam bu tàng di dem nga foog ne yow fi mu ne nii yaa ngi sa balaxal madda hmm. te yaa ngi ci danger bu mag hmm. oustaz fi nga ko daggee dafa neex lool yow fi mu ne nii nee naa la dangaa dugg ci bato boo xamante ne xamoo fooy teereek man bu ko defee dañ ko fiy tënk ko fi tënkee du baax dañ ko fiy tënk tënk waxtu wi fi mu ne jeex na lenn rek moo ma jaaxal <laughs> nit bu gaañu ah. nit bu génn àdduna hmm. ñu ne kan la ameloon bor hmm. kaay leen ñu fayal ko maam Jaara buñ ko fayalee bor bi dem na boobu dama la koy jox pour beneen beneen kii hmm. buñ la ko fayee buñ ko fayalee bor bi jeex na wala bu fekkee man mi mu ameel damaa am sa ñëw ne dafa maa ameel bor bi moom nu muy demee boobaa bu boobaa xam naa ne dinañ ko yeggale ajjuma yaa oustaz yow yaa ñu amel bor yow it da nga koy fay ajjuma oh, insha allahu rabbi li mu wax am na solo lool pareeguñu ci loolu xam naa ni moom final bi moom ajjuma lay doon ba ñu nga xamante ne ay ouvrier lañu ñu ay menuisier ñoom itamit di jël alali jàmbur wala liggéeyal nit kii war ko ko jox te joxe ko yooyu yëpp ay yoo xamante ne bagage yi ñu war a tënk la ajjuma ak jàmm lañ koy àggale bu ko defee maam jaara nga tàggatoo rek ñu daal di daw ñu jox leen dig daje rek àjjuma incha allah. ci mhm. kàttanu yàlla comme mhm. temps bi dañoo xoj. daf ñu xoj àjjuma rek incha allah. Uh-huh. ñu yaatalaat bu lépp xajal ci cin bi bu ko defee yaa oustaz tàggatoon jërëjëf yàlla nañu yàlla may mhm. digg ak topp yàlla may ñu ñëwaat fi beneen yoon waaye tam jàngale ñuy jàngale yàlla dugg ci xolu jaamu yàlla te yàlla na am lu mu effet bu mu def ba société bi jubanti. amiin yaa rabbi mu ngi noonu lu neex doy daanaka waxtu wi jeex na tàkk li ñu cërale woon ci ay waxtu dafa jeex su ko defee rek dañuy wax cant ak ngërëm amel nañu leen ko yéen tamit yéen ñu toog di ñu teewlu télé bi nga xam ne mooy télé askan wi mooy télé réew mi li ngeen ànd ak yéen saa su ne rek ci waxtu wii le di leen ko présenté ak sama équipe macha allah damay wax rek fa la dañuy dem ba àjjuma ak jàmm incha allah fi amanillah askan wi ñoo yëpp jaarale fii yi ñu nekkee dañu seetlu atum 2000 ba léegi li xew ci réew mi musu fee xew askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool